ba ñuy moom hmm. waaw ma leen bañ a wax ba ma laa moomay wax naa ma looy def si armeel waaw maa jee laa wax bu ñu mi di njëkk gis ba ngay am naqar fa muy reer sigil si sa am xel tam yaa dama mënuma bañ a doon sa rakk benn mosu doon am. ma xel man ma jàll. yéen tëru leen fii. Kéba ñu ngi lay nuyu di la masaw di la jàll. am bamba. ana nga. waaw maa ngi leen ma jàll. bamba am. yéen daal ku ne yéen fexe leen man man Kéba Seck ba ma wax.

noonu terjël suma teel mi ngi noonu doon jaale si xaritam Wally Seck Youssou Ndour sa taxaw te jërëjëf waaye buuba mbuub mbuub mbuub mbuub te xam ne lii kenn dogalu ko pour yàlla te yàlla mi ko taawul Papa Thione taawal ko Kiné Diouf Diaga bañ man koo meñ yor ko ba muy taxaw yàlla moom moo te jógu fi kon na doyloo yàlla te wàkkirlu ko rek ndax yàlla rek a nekk diggante ak bi Kiné Diaga ñu bari gis nañ ni am ngeen ay relation yoo xam ne relation yu particulière la waaw xam nga moom moom dafa nekkoon man sama yaay particulièrement parce que bu yàlla dogalee ma amoon ak jaxasoo ak waali ñuy liggéey ñun ñaar jaxasoo jaxasoo bu am solo macha allah moom dafa nekkoon ci diggante bi doon koo xam ne ku ma doyloo la woon ci lu baree bare bare muy jigéen gu baax xam nga liñ koy ñaanal rek mooy yàlla bu ko cat jiitu ci bàmmeelam jullite na maandu na bëgg na ñëpp te ku mas a fin xool digal na la lu baax ba boo ci jógee am njariñ donc yaay ju baax la yaay la daal en gros suma doo dañ koy ñaanal rek suñu borom yërëm ko te xare ko aljana jërëjëf jërë ngeen jëf am léegi quoi. 이렇게 저는 잘 있죠. mbokk yi mbokk yi ñoo ngi ñaan ñoo ngi ñaan ñi ci ginnaaw ñëpp ñu dellu ginnaaw ñoo ngi ñaan ñi ci ginnaaw ñëpp ñu dellu ginnaaw kenn wàññi wax ci ñi ci ginnaaw nanu dellu ginnaaw kenn wàññi wax ci nanu wane yar nanu wane tegin na ñëpp dellu ginnaaw na wane yar wane tegin ñoo ngi ñaan ñi ci ginnaaw nanu dellu ginnaaw te ñu wàññi wax ci Fire! ñi ci ñi ci ginnaaw la ñu dellu ginnaaw sama waa ji wax ci ginnaaw nanu dellu ginnaaw sama wàññi wax ji saaga na waaye am nañu fu ñu taxaw loolu sàkk mbooloo mi kenn ku nekk ci ginnaaw dem ci ginnaaw kilifa yi bëgg a jullee ñoo ngi ci saaga na waaye am nañu fu ñu taxaw te daal di teewi dañu bàyyi ay mbokkam ñu nekk ci kanam ay mbokkam nañ leen may ñu jóge ci kanam ay mbokkam nañu leen may ñu jóge ci kanam al aqrab awla bu gën a jege gën a yey nag na jëm ci bàmmeel bi nag ñëpp ànd ak yar